bismillahi irrahmani irrahim xamdan li rabbil alamin wasalaamaani ala alhaadi alamin nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahaabatihi ajmain mbokk yi tey mooy sunu jotaayu juróom benn fukk ak juróom ñeent mooy 69 ci sunu muqaddamatul iziya lil allaama abil xasan aliyin almaliki shadili raxmaatu rabbi alayhi yal ko yàlla dolli yërmande ñi ngi nekkoon ci wàllu sëy limoon nañ ponk ya ñi ngi woon ci ponkub can nu muy toll ak lu ca aju jeexaloon nan ko ñi ngi waa ñi ngi jël kon ar rukunu al thaalisu al ishaadu ponk ñetteel bi ci sëy mooy seede ya arukunu ponk ba athaalisu ba di am ñetteel al ishaadu mooy seede ya mhm. baatub al ishaadu dafay taxawee ashuhudu rek wala boog al ishaadu mooy seede ga waxuwa moom chartun chart la fii sixati duxuuli ci wérug tàbbi ca soxna sa mooy sëyëg moom laa fii sixati l xaq di déet ca wérug pas-pas ba kon jigéen ak góor bu fekkee ab sëy daa dox seen diggante war naa am ñu ko seede ñu ko témoigner gën gaa néew ñaari góor yu maandu wala boog mbooloo lu mu gën a bari di gën a baax moo mag ñi ci seen dégg diine Sénégal ñu jël sëy ñu koy takka ca jàkka ngir aada ngir mu gën a mën a siiw ndax lu mbooloo mi gën a bari mu gën a siiw mu gën a baax mag ñi moom seen dégg diine ñu ne kon nañ koy def ginnaaw takkusaan ak ginnaaw timis Mhm. dana fekk ñu bari wàcc daanaka ña julli si woon ci jàkka ja buñ jullee ba sëlmal ñu daa ah, daa am kat sëy buñ fiy fas ku mën a toog xaar nga toog sëy boobu buñ ko fasee ña julli ji woon ku nekk tasaaro dem fa nga jóge woon kee de dellu palaasam góor gee dellu këram kee dellu ca xewoom jëmoon kee dellu ca nangam maçon ba dem liggéey ku ci nekk ne jàkka ja de laa fa jóge léegi diw lañ doon may diw su ko defee day gën a yaatu gën a siiw loolu ci technique wu mag ñi la waaye dem jàkka moom bu dee ci lislaam lislaam néewut bu ñu takk sëy nañ dem jàkka loolu sunu aadala rek waaye lu rafet la nag waaye manees na koo tekki fépp nag manees na koo tekki ci néeg ci ëtt si fu mu mën a doon kon dañuy bëgg seede waaye neen nee na seede gi kat buñ ko waxee bañ koy fas mën naa bañ a am seede de mën nañoo fas sëy te du am seede mhm. nit mën naa toog rek génn góor woo ab jarbaatam naka dama laa bëgg a may euh, sama doom ji nangam di laaj mu ne d'accord naa mu ne koon yëgal ne may naa la ko loolu dong bu ko waxee fi ne sëy bi fasu may naa la ko su ko defee nag mu daal di joxe can kooke wala boog bàyyi je nijaay ci boobu mën naa yëkkati xaalis ne ko lii kat vingt-six mille la mi ngi nii comme demal jox ko ko wala woo ko ba mu ñëw mu ne ko jox ko ko mooy mooy can gi xam nga kenn séedewu ko ndax kooku di fas sëy bi moom du mat seede nekku ne kii fas sëy bi ci boppam la ñaan mooy seede daa am ñeneen ñu ko war a fekk kon fas-fas boobu la wax ne mën naa nekk waaye ginnaaw nag bañ fa jógee góor gi bu mu séq ak ndaw si lu dul nag daa am seede kon baay jooju bu noppee na woo aw nit moo xam da leen woo téléphone sama doom jigéen ji kat yëgle ne may naa ko sama jarbaat bi diw ñu xam ko nu mu gën a yaatu rek mu gën a mu gën a baax wala mu bàyyi ba kër gi dajaloo mu wax leen loola moo tax mu ne wa huwa chartun fi du duxuli balaa góor gi di mën a séq ak ndaw si dara moom ah kooku moom faaw mu am ab seede bu fekkoon góor gi daa jekki-jekki rek dem séq ak ndaw si ñu may ko ko amagul seede mu séq ak moom ah dañ koy dindi de dañ koy dindi lu mu yàgg-yàgg dañ koy dindi na koy fase fase mu dog ak lu yàgg-yàgg kon kooku bokk na ci ponk yi ab sëy daal faaw mu am ay seede borom xam-xam yi nag yeneen ngiir yi ak yeneen borom xam am nañ ci ay wax ah, ndax dañ koo sopp ndax dañ koo nàngam wallahu aalam arrukunu arrabiu ponkum ñeenteel ba almahallu moo di barab ba maanaam sëy bi buñ ko fasee ba noppi fan lay tàbbi mooy jëkkër jëg jabar ji hmm? mooy ñi ñuy fasal ki ñuy fas ak ki ñu koy fasal loolu jubli almahallu rek hmm? mooy fi sëy bi dugg wa moom almaratu moo di jigéen ja alxaliyatu jay aji wéet min almawaanii ca way tere ya allati ya nga xamee ne taqdi day sàkku taxrimaha ak araamalam faaw dañuy am jigéen joo xam ne xool nañ ci wàllu yoon amul fenn fu yoon teree ndaw si ñu maye ko wala ñu may ko kii di ko waaj takk dégg ko mu ne jigéen ji faaw day nekk jigéen joo xam ne lislaam terewut ñu maye ko mooy da almawaane yi ñu maye jigéen daa am dégg nga bu noppee ñu xool kiñ koy may ba xam ndax séquñu dara loo xam ne dana tax duñ ko ko mën a may loolu mooy almawaani allati taqtadi tahrimaha masalan mu euh, fekkee jigéen ji mu dëgg yàlla dafa nekk rakki kiñ ko bëgg may kon yoon moo naan ah man kat neewoon naa góor mënoo takk sa rakk wa axawaatukum seen rakk mënu leen takk moo xam mi na radaaxati wala bokk ci wàllu nasab sa ju jigéen hmm. kon loolu sariixa moo wax ne ah lii kat mënta nekk wala bokk dañoo bokk ndàmp ñu ne góor gi ak nangam mère Fatou Diop bokk na leen nàmpal ndax kee yaayam daa faatoon mu nàmpal ko wala sax yaayam faatuwut ni jigéen ñi def rek dañ ko koy dénkoon muy jooy mu saxal ko ween yi fekk booba ween wa am na soow ndax bu ween wa amul soow moom garaawul su boobaa loolu ak araamate day am ñaar ñu bokk nàmp day mel na ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay kon lislaam daraan looloo tax am na lu ko teye wala boog sax ñu ne góor gii daa mas takk jigéen ci ba ñu rëbboo rëbboo mooy jiiñante ab ëmb yaa ko jur juróo ko góor gi ne juruma ko wala yu mel noona wala mu jiiñ ko njaalo wala yu ko nuru bañ àtte leen ba tas seen diggante ñoom duñ mën a takkantewaat kon mawaanix am maanix am na maanix mooy euh, mawaanix mooy jamoo am na lu tey sëy bi am wala boog ñu ne jigéen jii ngeen di maye dafa nekk ci idda jëkkëram jëkka ko fase woon idda ji jeexagut gis nga ko kon ba léegi kon idda ji li fekk jeexagut rek du baax wala ñu ne jigéen ji day laablu dafa la dafa dafa njaalo woon wala nit da koo siifoon mu tolloon ci di laablu ba xam ëpp jëlee na ci ëmbam déet yooyu yëpp jigéen ji bu ca nekkee duñ ko mën a maye loolu mooy al day tax jigéen day araam day araama maye loolu bëgg a wax rek wala ñu ne ndaw si dafa ëmb ku ëmb duñ ko duñ ko mën a maye duñ ko mën a fas moo xam ëmb ëmbu njaalo la moo xam daa ëmb na jëkkër ëmb ca jëkkër ja jëkkër ja fase ko <laughs> tey su boobaa ba dee jabare jàmbur la ndax idda ja jeexagut mooy idda rek kon kon moo tax mu ne al al maratu al xaliyatu min al mawaane jigéen joo xam ne mboolem li nga xam ne lislaam day wax ne lii bu amee duñ ko mën a maye moom nekkul ca moom kañ ko war a may gis nañ ne bokkut a nekkul mbokk mu ko jege wala amul dara lu sariya tere seen diggante loo rek la ci jubloo mi ngi noonu wa zawju ne woon naa jëkkër ji ak jabar ji lay doon wa zawju ak jëkkër jëkkër day am ndax jabar jabari kese kenn du ko maye jëkkër yi kese mën a takk ab sëy mënuñu koo takkal dara faaw faaw ki ñuy takkal ak kiñ koy takkal lay doon wa zawju wa yushtaratu dees na sart fi saw fi fi fi zaw ji ci jëkkër ji moom it dana am ay charte de jëkkër ji wa yushtaratu dees na sart fi zaw ji ca jëkkër ja shuruutu sixatin sarti wir wa shuruutu istiqraarin ak sarti ak sax jëkkër ji am na sart yi ñuy xool ci moom ngir ñu mën koo fasal sëy bi sëy bi mën a baax mooy wér ñu ne kii lislaam nangu na ku ko may ak sart yoo xam ne may nañ ko ba may gi baax na de waaye ngir sëy bi mën a continuer waaw wala déet faaw dañ koy xool ba xam hmm? ñaar yooyu mat naa ràññee surootu sihatin mooy sart yoo xam ne day wér day tax bu ko mayee lislaam d'accord ci may gi surootu istiqraar mooy sëy bi moom xam nañ ne may nañu ko lislaam d'accord ci wér na waaye daa am lu ñëw loo xam ne faaw dañuy xool ba xam ndax sëy bi day continuer wala déet sëy bi moom am na ba nag waaye ndax day continuer wala déet loolu daa am ay chart dana ko leeral moo tax mu ne euh, fa suruutu sixati sarti wér ga nag arbaatun ñeent la li tax góor ñu mën koo may soxna mën koo fasal al islaam mooy lislaam góor gi faaw day nekk ab jullit ab yéefar kenn mënu koo may jigéen jigéenu jullit kon ab yéefar kenn mënu koo may jigéen jullit bu ñu ko mayoon it du baax góoru jullit nag moom mën naa takk jigéen joo xam ne kitaabiyaat kitaabiya la daa bokk ci kitaabiyaat mooy jigéen joo xam ne chrétien la wala juif ni ko mu ne diine yonent yàlla Isa la nekk wala yonent yàlla Muusa waaye bu dee jigéen ji ab yéefar la jullit mënu koo takk mu ngi noonu te bu koy takk waxoon nañ la ko ay kilifaam ñoo koy may jàngoon nañ ko ca gannaaw ba tey jëkkër ji am na lu ñuy xool ci moom wat tamyiizu ak ko ràññee ak ko ràññee koo xam ne dafa doon xale ba xamewul sax dara xamewul dara yéewut xelam àggugul fenn kooka kenn du ko fasal ab sëy dégg nga ko walla àqulu ak xel ku amutum xel du dem naan may leen ma jabar ak wala yu mel wala boog dem naan damay may sama bu dee jigéen li kon liñ ci dégg mooy lan mooy ku amutum xel daa am ku yore ay mbiram kookee nag mën naa dem di ko ñaanal wala di ko maye waaye moom ci boppam fii sax ci jëkkër ji rek lañ nekk kon góor daal bu fekkee dafa amut am xel dafa dof mënta dem di wuti soxna mën nañ ko wutal nag ñeenteel ba mooy lan mooy wata xaququ zukuri ak dëggu ngóore faaw day nekk góor goo xam ne góor gu wér la bu dee koo xam ne dafa nekk xunsaa muskil moo tax ma ne fal xunsaa nguuni ngaana al bay aji lënt laa yan du denc soxna wala yun kaxu deesu ko dencal dégg laa yen ko xul du denc wala yun ko xul dee su ko dencal maanaam moom ci boppam mënta a takk soxna kenn mënu koo yilif tamit ba takkal ko soxna ngóoni ngaana mooy koo xam ne nee ñu yàlla da koy defal cëru góor ak cëru jigéen mu am awrey jigéen sawukaayu jigéen am sawukaayu góor li tax mu tudd ci al mushkil nag mooy bu fekkee ne nekk na xunusaa mooy am na cëru góor ak cëru jigéen waaye benn ba doo ngay dox subaa dañ koy jàppee lool de dañ jàpp ne kon kii daal daa mel ne kon jigéen la wala góor la buñ ko doon miraas loolu lañ koy jàpp bu fekkee nag daa nekk koo xam ne xunsa muskil la mooy boo xoolee ba ne góor la rek nga xoolaat beneen côté ne ki kii kay jigéen la mënoone ne góor la mënoo jigéen la masalan ginnaaw ba mu amee ñaari euh, tuurukaayu ndox bu ko neexee léeg mu tuure ndox ci bu jigéen léeg mu tuure ndox ci bu góor loolu day xaw a doy waar. wala dafa am sikkim ñu xam ne sikkim moom góor moo ko baaxoo am mu boole ci am ay ween te wen jigéen képp moo ko baaxoo am xam nga ñaar yooyu mënuñoo ànd loolu kon muskil dëgg la kooku mu dafa lënt dafa lënt waaye nag bu fekkee daa yor bindu jigéen ñi ngi di wax baat bi sew wala yu mel noona waaye wax dëgg yàlla euh, cëru góor la yore yoru benn cëri jigéen lu dul xaw a nuru jigéen ñi ci kaw rek loolu dara nekku ci hmm, kon mu ne mu ne taxaququ dukurati ndax jigéen lañuy may jigéen nag góor lañ koy may duñ ko may ku góor mi ngi noonu kon yii mooy charte yi nga xam ne danañ ko xool ci góor gi hmm. wa shurutul istiqraar yi sartu sax ga nag li nga xam ne day tax sëy bi moom daal di sax continuer al istiqraar mooy ak continuer rek continuité xamsatun juróom la xamsatun juróom la sart yi nga xam ne shurutul istiqraar alxurriyatu moo ca njëkk mooy ak ngor mooy ngor falaa yastaqirru du sax nikaaxul abdi sëyub jaam bi is xayri isni sayyidihi ci lu dul ndigalul sangam ba gis nga ko ab jaam mën nañ ko may soxna de sart yëpp daje na xool nañ jigéen ji ñu koy may jigéen ji nekkul ci idda nang moom xool nañ ko dégg ab jullit la te ràññee na am na xel te góor la ah ñu daal koy may ndax loolu mooy sarti wér ga waaye buñ ko mayee ba noppi ab jaam bu jekko jekk dem na may leen ma soxna fekk xamuñ ne ab jaam la xam nga may nañ ko sëy bi wér na waaye lay tax sëy ba sëy ba continuer mooy sang ba ka moom da cay nangu da day d'accord day d'accord ndax waru doon takk soxna te tëggawul ndax ma dañ koy yilif su boobaa nag bu sang ba ne ah waaye comme xas na takk nañ ko bàyyi noona baax na bu sang ba ne déedéet dañ koy dindi dañ koy dindi kon gis nga kooka bala moo continuer faaw sangam ba loolu taxu ñun la sart yoo xam ne charte continu continuité la day tax mu mën a wëy wal balu wal buluuxu ak kàllafe ak kàllafe falaw tazawaja bu sëyoon asabi yu gone ka maanaam bu takkoon soxna bi xeyri isni isni abihi ci lu dul ndigalul baayam aw wasiyati aw wasiyihi wala kañ ko dénk nee nga fayin ajaasahu bu ko daganalee bu ko wéyalee waliyuhu kilifaam googu jaasa mu dagante wéy wa in raddahu ndem delloo na ko nag ne ko déedéet baadal binaa i te fekk ginnaaw xaraf gala ginnaaw ba mu joteeg soxna sa fali zawji kon ñeel na soxna sa rubu dinaar genn wàllu euh, dinaar mooy dinaar buñ ñu xaaj ñeenti xaaj mooy gën ngaa néewi can rek ba tey bokk na ci li tax ay am ci ab sëy mooy ak gone gone bu dem dem takk soxna xam nga mën nañ koo may ndax jigéen dañ koy may gis nañu amul benn problème moom mi tamit xam nga li ñu waxoon at tamis na moom ràññee na dégg nga li ñu jubli ci fii mooy ku kàllafeegut nit nag mën naa mat am xam-xam yeewu te fekk kàllafeegut te comme am na ak tamis lépp daje na waaye buñ ko mayee ba noppi ba fa sëy ba ba mu wér ah bàyyam doo koy yëg wala kañ ko dénk doo koy yëg ka yor ay mbiram ngir sëy bi ndax day continuer wala déet kooku mooy wax de. kooku mooy xool bu nee déedéet sëy bi dama koy dindi kii ñu ko may nangam nangam wala waragul a takku soxna wala amul lu mu ko yore wala nangam dindi ko ñu ñu dindi ko bàyyi ci xel. bu fekkee nag baay da koo delloo da wax ne nañ dindi sëy bi bu dee baay ja ko dindi ah ndekete jot naa wéet soxna sa kon danañ jox soxna sa cande danañ ko jox rubu dinaar mooy gën nga mooy gën gaa néewi can dégg nga ko kon foofu istiqraar balaa am kilifa gi da koy dogal nga kon sëy bi wér na waaye ngir mu mën a continuer nag faawu faw faawu baayam wala kilifaam kooke continuer ko achaalisu ñetteelu charte ba ci charte istiqraar arushdu moo matum xel mooy kay takk soxna nekk koo xam ne am xelam day mat sëkk sëkk sëkk waxoon naa waxoon nañu ko ci ginnaaw mooy li ma leen waxoon rek ar buñ ko waxee mooy koo xam ne am xelam day jub xocc nga dana xam ni muy ni muy yore alal ak ni mu ko dul yore maanaam daal du yàq jubluwuñ ci rusdu goo xam ne maanaam koo xam dafa dof ndax ki dof moom mbiram jàll na nee nañ kenn du ko takkal soxna loolu kilifa wax nañ ko ba noppi waaye ki nga xamee ne dafa yéewut lool ba xam ni ñuy sàmmanteeg alal ni ñu koy kiyee mooy am noosar la lañ rek yàlla na ci ginnaaw fa in tazawaja kooku dañoo wax kilifa ndem sëy na asafihu aji dese ja bi xayri isni waliyi ci lu ndigalu kilifaam googu ñu ko booleel falil waliyi ñeel ne kilifa ka imdauhu ak wéyalam in ka in kaana ndem nekk na sa daadan di ak njub wa in raddahu ndem delloo na ko moom it ba'dal binaay ci gannaaw xaraf ga fari zawji kon ñeel na soxna sa ko waxee woon rek dégg ki nga xam ne moom it dëgg la am xelam mat na nii jubluwuñ ci ku dese wala ku dof xelam mat na waaye daal dafa dafa wayadi xamul ni muy sàmmee alal ak loo ca aju ah kookee dañ koy boole ku koy dañ koy boole ku koy dimbali lépp lu a koo ko xool ba xam ndax loola jaadu na wala jaaduwut bu fekkee daa jekki-jekki nag jël alalam jekk-jekki dem takk soxna kilifaam googi nga xam ne moom lañ ko dénk kooku mooy xool mu fekkee joxe na ca ndigal kilifa googee mu daal di wéy bu fekkee joxe wu nag baax na baax na bu fekkee joxe wu ca ndigal nag ñu daal koy dindi waaye ba tey nga bañ a fàtte li mu wax rek heure boo xam ne ak jote am na daal faaw ak can moom day daal di day daal di am. araabihu ñeenteel ba af sixatu mooy wér ga fala yasixu du wér nikaaxu maridin euh, sëyub aji feebar mooy góor gi wala maridatin jàng aji feebar ju jigéen wa yufsaqu dees na ko dindi walaw baadal binaay ak doonte ci ginnaaw xaraf gala la doonte ginnaaw bañ jotee ba noppi hmm. ñeenteelu ponk ba mooy faw góor gi ñuy maye mooy ci euh, sart yi nga xam ne day tax sëy ba ñu bàyyi ko mu wéy mooy góor gi day wér bu dee jigéen a jigéen ji day wér góor bu feebaree jekkee takk soxna dañ koy dindi buñ ñu ko yëgee jigéen bu feebaree ba noppi dem wut wut wut jëkkër dañ koy dindi xam nga kon sëy bi wéroon na ba noppi ndax ndaw si amut lañ doon sàmm ci euh, ndaw si amu ja jëkkër ji tamit nekk na góor sart ya mat na waaye nag sarti istiqraar moo des dañ koy dindi lu mu yàgg-yàgg doonte jot nañoo séq dara waaye nga bañ a fàtte la mu waxoon rek dañuy jox ndaw si kon ak canam dañuy jox ndaw si ak canam mhm. bu yàlla dogalee ñu dindi ko te fekk yàlla dogal ginnaaw ba ñoom ñaar ñu wér maanaam ndaw si daa feebar wut jëkkër laata ñu koy yëg ba di ko dindi mu daal di wér wala góor gi am jabar bi muy feebar la takk jabar loolu yoon da koy bañ waaye mu far wér kon su boobaa loolu dañ koy dañ koy bàyyi noonu rek loolu liñ ci li tax ñu di ko tere mooy lan mooy góor mën naa nekk ba feebar mu xam ne day faatu mu bëgg dugal ci miraas mi ku ci ku yéene woon rek ko doon soxnaam jekk ja gis benn jigéen yéene ko ci miraas mi nekk mbokkam wala dara jekk takk ko ngir bëgg bu faatoo kooko doon ko am ci alal ji moo tax dañ koy kii jigéen it mën naa def loolu mën naa xam ne day faatu mu am ñu mu yéene alal ji wala kum ko yéene jekk-jekk dem ne nañ ko may kooko ndeket daa yéene rek alal ji mu bàyyee ko loolu lépp dañ koy tere lislaam daa bëgg ak maanu te loolu du ak maanu bu ko neexee nag mën naa jël dara may ko wala mu dénkaane ñu may ko nangam loolu yoon téréwu ko waaye dañuy bañ rek mu jël ci alal ju lu bari naka noonu fase tamit noonu lañ koy teree maanaam góor bu fekkee dafa feebar feebar boo xam ne feebar bu xaw a ñàng la nga ne ak faatu mën na caa juddoo dañ koy tere muy fase moom it loolu lañ ciy bañ man ngaa mere sa soxna rek nga iñaane ko ci ndond gi wala yu mel noonu nit ba feebar ngi jege gaaw njëkkande gaaw fase ko ngir bañ mu doon la loolu moom bu ko defee danañ ko may fase gi de fase gi dees na ko nangu waaye nag heure bu faatoo ci feebar bi moom ndaw sa day wëlbati ku ñëw doon donte ndaw sa sax idda ja jeex na ba mu amaat jëkkër sax nga ne ndaw sa man naa nekk kër boroom këram di sëy ñu ne ko sa jëkkër joojee jala fase woon faatu na mu wëlbati ko jógee ca sëyam boobu dem laaji miraasam mhm. loolu ci masab imam malik am na ñeenti wax ci mazahibul arbaa waaye noonu la ala kulli xaal noonu la demee ñii bu fekkoon ne yàlla dogal kenn faatu ci tamit nee ñu kon ak donn moom ak donn du ci am de ndax dañuy ragal ak donn waraloon ko bu fekkee kon ak faatu daa am ak doon donnante du ci am ndaw sa dees na ko jox ak can bu ak wéet amee hmm. bu xasee ba faatu ci misaal góor gi daal di faatu te fekk jotoon naa séq ak ndaw si dara kon su boobaa dees na ko jox naka noonu bu buñ koy jox nag lañ waxante woon rek manees na koo jox bu fekkee waxante woon nañ dara bu ñu waxantewul dara nag nañ ko jox rek euh, sodaakul misli waaye daal donn daal ndaw si moom mm, du ko def wallahu alam alxaamisu juróomeel ba alkafaatu moo di ak nawlante moo di ak nawlante ak nawloo alkafaatu walkafaatu ak ak nawlante nag wala ak nawloo xaqul marati ak jigéen ji la wala awliyaa ak kilifa ya kilifa jigéen ji fa in ittafaqat nem d'accord na nem dëppoo na maxawum ànd ak ay kilifaam maxawum ànd ak ñoom ala tarkiha bàyyi nawlante ka maa adal islam ba mu des islam jaasa kon mu dagam xanaa nga dégg amu ci lislaam ci nangam dañuy wax rek am na ci bu baax a baax a baax a baax waaye lislaam nag daa am nawle goo xam ne mu dana nawle gii moom man moom laay bàyyi xel moom maanaam moom laa jàpp ne am na solo ba bu amut sëy du mën a am mooy lan nawlante ak islaam ab sëy moom jigéen ji buñ koy mayee kiñ koy may lu bon bon dana nekk nawlem jullitam loolu moom mënta ñàkk far force lay doon dawax wax nañ léegi ne ab yéefar mënta takk jigéenu jullit wax na ku nekkut ku nekkut jullit mënta takk jigéenu jullit donte boo demee bitim réew nag am nañu jigéen ñu bari ñu def dem di sëy tubaab yoo xam ne xam nañ duñ ay jullit ñu ko def donte xam nañ ne baaxut waaye xëy na ñenn ñi àdduna moo leen ko jaral yal nañ ci yàlla musal léegi nag ginnaaw bu lislaam jàllee ah yeneen yi nga xam ne nit ñi dañ ciy nawlante ni ki kii géer la kii géwël la euh, pël bi ne du ma sëy ak séeréer bi wala séeréer bi du ma sëy ak pël bi wala nanga loola ku nekk sañ na ko dëgg jëruñu ci xas kenn nit ki sañ na ko li mënta nekk rek mooy ab xaste di ci am man ab séeréer laa du ma sëy ak pël ndax pël nangam daal di daal di xas pël ndax pël yi nangam wax leen baat bu jaaduwut loolu moom la ñuy tere wala man géwal laa du ma sëy ak géer ndax géer yi nangam loolu la ñuy bañ waaye nag man nga ne man duma bëgguma sëy ak nangam nga tànn kon nawlante lislaam ah kay am na ci bu baax a baax am na nawlante gu mat am na gu gu ñu tànne moo gën a mat borom xaalis borom xaalis nawleem la ci wàllu am-am. ka dëkk ki dëkk ci kaw gi ka dëkk ci kaw gi nawleem la ci wàllu dëkkuwaay ka dëkk taax ka dëkk taax nawleem la ci wàllu woowa ku bokk ci askan wii ka dëkk bokk ci askan wee nawleem la ci nangam loolu mu day am ndax yàlla moo bind eh, wa rafa'na ba'dahum fawqa dara jaat yàlla moo def noonu eh, adduna ay askan yu foor ak yu mel noonu waaye nag bokk ci askan wu foor wala bokk ci géer nangam wala nangam loolu mu taxut a gën kenn moom taxut a gën kenn léegi nag loolu moom ñoom ñaar ñii sëy rek ñooy xool góor gi bu ko neexee mu ne man duma ma takk ci nàngam sañ na ko waaye bu mu leen xas jigéen ñi bu ko neex mu ne du ma sëy ci nàngam mi ngi noonu léegi nag ñoom ñaar bu ñu dàqee loola nag ne duñ ko def ah ñu bàyyee leen ko incha allah waaye lislaam ji moom moo mënta ñàkk nawleeg islaam moom mënta ñàkk waaye yeneen nawlente tey nag ku ñàkk jigéen ju am xaalis nekk yor ay million mën naa fekk góor goo xam ne amul dara amul kër amul dara kooku du nawaleem ci wàllu am-am waaye bu d'accordee dem sëyeeg moom am ak ay mbokkam dagan na dara nekku ci wallahu aalam